ci or peut-être ñoom dañoo jàpp ne comme li ñëpp jàpp parce que or quand même alal la or c'est une richesse mais ñoom par rapport ak seen situation seen condition de vie seen zone bi ni mu mel ñoom mënuñoo comprendre lu tax alal gu ni mel di fa jóge te ñoom mënul feeñ ci ñoom feeñ ci seen waajur mënul feeñ ci seen dëkkuwaay mënul feeñ ci seen environnement immédiat Mm-hmm. Et c'est cette nouvelle prise de conscience qui conduit maintenant les jeunes, notamment les populations de manière générale, de ces zones minières, d'exploitation minière, justement nous revendiquer un minimum. Mm-hmm. On se rappelle de cette célèbre boutade de, de Birahim Sek, mm-hmm. les milliards pour les sociétés minières ou étrangères, la poussière pour les populations. Et c'est une forte image boo xam ne aujourd'hui moom moo fi nekk. yi ñoom réclame wuñ ni plus ni moins en tout cas dans cette situation de Xosanto et environ mm -hmm. que main d'œuvre locale bi mais nañ leen permettre également ñu mën di liggéey foofu mhm. le préfet sur la base de discussion indi un mode de recrutement mm -hmm. maintenant ce mode de recrutement dem ba mu changer ko ne maintenant ça relève de l'autorité. Mmh. Parce que ce mode de, de, de recrutement de la main-d'œuvre locale était confié aux chefs de village. Yi nga xam ne ils avaient euh, euh, ils, maîtrisaient la situation, ils savaient les réalités de la population. Bon, xaw ma nag sous quel prétexte, mais on change les règles de recrutement. Mhm. Mais jeunes yooyu dañ ci gis seen bopp. Ils se disent que nos intérêts sont maintenant menacés. pourquoi changement yi war a mën a am est-ce que ça a été discuté ou pas en tout cas ça a créé de la frustration et yenn ONG yenn organisation de défense des droits de l'homme yàgg nañu alerter on a vu le le le communiqué conjoint de LSDH Africa Job Center. Mm -hmm. RADDHO ak euh, Ligue sénégalaise des droits humains. Mm on a vu également la réaction de de Birahim Seck du Forum civil. Mhm. qui te disent que ñun yàgg nañoo alerter. Mhm. alerté nañu bay ba ba sonn il a fallu que situation am ba nit dee ci ngeen doogu war a mën a jël ay décision mmh. parce que dans l'immédiat cet arrêté du préfet de Saraya mmh. qui a créé la confusion qui a créé ce drame mmh. on parlera de drame le ministre de l'Intérieur il prend un autre arrêté pour annuler la décision du préfet pourquoi mënuñu woon njëkkee foofu bi coow li amee parce que coow li xëy ñu signé ko léegi léegi coow li jóg léegi léegi déedéet Les gens ont alerté depuis deux ou trois jours. Très bien. Et ces populations se sont révoltées mmh. et malheureusement matées par la gendarmerie. On se retrouve aujourd'hui dans une situation euh, très difficile. Parce que parmi les victimes ñi nga xam ne nañ ci seeni bakkan il a le frère Le maire. Le maire qui n'est pas également n'importe qui. Mm-hmm. On annonce une rencontre aujourd'hui, peut-être même un déplacement de Oumar Sarr, ministre euh, des Mines et de la Géologie, mais cette rencontre, c'est peut-être dû au sapeur-pompier, mais est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? xalaat. alors la médecine après la mort. est-ce que Fabrice Nguema à l'heure wu wax ndaw ñi ñàkk nañu yaakaar ci sen réew ba euh, mbëkk mi la ñu yaakaar euh, hmm. est-ce que loolu du gën a jaxase seen i xel. absolument mais par rapport à Khossanto. Mhm. je rappelle que ce n'est pas une première dans cette zone. oui il y a eu Tomboronkoto. non il y a eu Tomboronkoto. Mm -hmm. mais Kédougou aussi. Mm -hmm. Simon. Tu te souviens des émeutes de Kédougou avec la mort de Sidibé Oui. Oui. qui était l'homonyme d'un oui. ancien ministre Souad. Ouais. Christian, je ne sais pas quoi, c'est Mamadou. Euh, euh, non, donc Mamadou Sidibé, un truc comme ça. Mm. Yannick Fataligou. Alors qu'à cette période, à Monaco, il avait alerté par rapport à cette situation qui allait arriver sur les émeutes de Kédougou. Mm -hmm. Un leader, je parle de Oumar Pen, qui avait produit mais si une contribution. Uh-huh. mu ne lii man li ma gis ne il faut faire très attention il y a une situation qui se prépare. Uh-huh. alors dès qu'il y a eu les émeutes moi je me rappelle que cette contribution on l'a publiée dans le Walfadjri quotidien. Uh-huh. et après les émeutes justement il a été reçu dans l'émission Opinion par Oumar Nini. il a expliqué que non j'avais alerté. c'est la même situation avec Birahim Seck. maanaam des gens alertent toujours mais pourquoi. ces gens-là prêchent dans le désert. pourquoi ça tombe dans l'oreille d'un sourd man sama man sama inquiétude foofu la mhm. c'est là-bas où se situe mon inquiétude parce qu'il y a quand même des gens qui allaient les médias en parlent tout le temps maa ngi fàttaliku aussi mhm. tout le temps aux avant-postes par rapport à la situation des travailleurs de des mines Omar Pène ñëw mais demandez une contribution qui avait fait tache d'huile ouais. Omar xam nga Omar Pène moom lui il est sans langue de bois. Mhm. pour les pour les pour les causes nobles. Mhm. moom une production intellectuelle ba mu dem émission expliquer que lii daa wax naa ko bind naa ko. Mhm. mais personne ne m'a écouté et là encore on nous dit que Birahim Seck avait alerté. personne ne l'a écouté léegi maintenant mais qui va écouter qui. pourquoi préférer jouer au médecin après la mort. mais non mais à la politique de l'autruche. Après, tu joues le médecin après la mort et finalement, ça te retombe dessus. Et quand on commence à compter les morts, faut que le gars il commence à dire oui, euh, Kyle Newark, oui, euh, qui a 10 millions à faire. Est-ce que le problème c'est à ce niveau Est-ce qu'il ne faut pas voir le problème ailleurs Voilà. Mais parce que ils alertent. Mais il y a le média alerté. xoolal par exemple Bougane Gueye daal di alerté na fii ci situation wu kii même Kédougou bi Il l'a alerté. Quand il y a eu les problèmes de, de, de, de, Corona, là, avec Khalis ou Corona, il l'a alerté avec des points. Mais pourquoi est-ce que ñoom il voit la politique en tout et pour tout. Mhm. loolu mooy question bi. très bien merci beaucoup surtout boo xam ne yow après da nga obligé waat. abrogé delluwaat ci ginnaaw. loo xam ne yaa ngi koy def mais xam nga ne après. même bu ñu koy dindiwaat. c'est parce que yow mi ko dindiwaat xam nga ne lii baaxul. en tout nga imposer ko ba ay nit di ci dee. mënoon naa ñàkk ay moor yoo xam ne mënoon nañ ko éviter. et et quel type de mort on nous dit des morts par balle. par balle loolu a. qu'est-ce qui s'est réellement passé au point que les forces de l'ordre peut-être utilisent des balles bu dee ñoom la. ñoom la. parce que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. il faut une enquête sérieuse. il faut situer les responsabilités. et il faut aller vers des sanctions. Il faut et maintenant, maintenant que l'État également apprenne à anticiper sur des solutions. effectivement. Parce que c'est aussi bi foofu la affaire mais l'État souvent est en retard sur certaines mm -hmm. décisions. Il faut que l'administration dans certaines zones puisse prendre ses responsabilités. Mm -hmm. Parce qu'il y a des gens qui prennent des responsabilités. Absolument. Mais dans des situations pareilles, il faut savoir anticiper. Et justement, l'une des anticipations efficaces, c'est d'instaurer un dialogue. Un dialogue inclusif oui, avec permet d'éviter certaines situations comme euh, l'Union amenée. Euh, mais anticipation, mais de anticiper par rapport à qui bâtiment menaçant de ruine. Même Je pense que vous allez pouvoir pouvoir élargir dans les commentaires euh, du journal de 8 heures jot nañu dem revue des titres temps bi <laughs> donc temps bi sama temps la euh, policiers yi nekk rond point Dioutiba ma leen di nuyu Dioutiba euh, Abou Gueye rond point Dioutiba Tëngit waaw parce que dama nuyoo sànq ñaanal message yi ma day ci boole policiers yi nekk rond point Dioutiba mooy dëgg nag waa jik ah, tamit da leen nuyu waa jik non ak ah, ñu liggéey bu am solo jik ah mhm. dig. dig Adrame moo fa nekk sama mbokkum tëngee. Adrame saa saa ñoom ñuy seetaan bu baax a baax fan la tamit la dëkk tëngee. ah waaw waaw mais Bambaye ces man de gis naa ci koo xam ne. Mm. ci balcon këram la toog. kenn ñëw def si déclaration de vol. Mm-hmm. d' agression suivie de vol. Mm-hmm. ci fajar gi. Mm-hmm. mu déglu waa ji xool ko rek mu xam ne waa ji. muy wax dëgguwul <laughs> mais bañ ko toppee ba ñu topp ko. c' est le gars lui même qui a qui a qui a manigancé son eh agression. pour couvrir un délit qu'il a ah, commis. Ah. Sénégal dafa xaral ah, daf eh, ko tiim rek waa ji sa gisu ko. daf ko tiim waa ji di wax ak les policiers là non demandez ma topp corps convoi. Eh, waa ji mu ne arrêté mais Fabrice yow yow loolu ñuy topp. je dis mais kan moo la wax ne Fabrice waa ji ñëw ba ci bopp koñ bi woo ne ko génnal wala ma ñëw jàpp la. ñëw mu mu mujjee génn. yàlla baax surtout dañoo xarañ <laughs> ba tax ne. xarañ euh, ñu naan ko sax. j'ai <laughs> le Prytanée militaire a perdu le lieutenant Bayodim. Oh, c'est un oncle à moi. voilà donc le Prytanée militaire Non, il faut, voilà, il faut, il faut l'appeler donc, euh, il faut ajouter Charles Choréré. Ils ont perdu le lieutenant euh, Bayodim, qui a servi 50 ans. 50 ans 50 ans au Britannique militaire. Beaucoup de cadres. ans. ndeysaan moom moo nous l'avons perdu hier aux de 6 heures du matin. ndeysaan ñu leen koy non et puis Britannique militaire c'est une école d'élite. une école d'élite. Pour la plupart de ceux qui sont sortis là sont des chefs d'État, sont des généraux, un peu partout en Afrique. Donc ils ont dû passer entre ses C'est ça. ndeysaan ah. ndeysaan. benn joyeux anniversaire parce que <laughs> nit ñi dañuy bëgg des fois nga leen di sagal daal joyeux anniversaire à une grande sœur à moi Mami Diop Magu Khoudia Diop maa ngi lay souhaiter un très bon joyeux anniversaire. jël ngeen sa waaw man maa ko jaay nag sama minute yi maa dem. waaw waaw mu ngoog Abou Gueye rond point Juuti ba Baba Maal moom it policier yi nekk ci rond point Juuti ba nuyu naa leen euh, tey yéen moom revue de titre bi. ay ca tribune tey kat moo si yéeg. tribune yéen kaay ah. Amadou. Amadou moo yëg Amadou tey moo yëg fépp fàtt na fépp dinañ ci ñëw Amadou Ba laata ñuy ñëw dañuy teg baaraam ci sa loxo daal di ñëw fii nga xam ne. waxoon naa leen ko de. ñu ngi koy defal promotion de. dañoo ko nar a la taal la taal Khossanto googee nag la ñu waxtaan. <laughs> <laughs> deux morts. la xew sa Khossanto yéeme na. gis nañ image yi mu ngi circulé ci boor bu ne. Hmm. ay nit yu tëdd deret wër leen. ñu oh. ngi nii. la ko waral benn arrêté bu ñu jël recrutement main bi nga xam ne daanaka noo qualifié la ñu wax. chef de village ñoo ko doon yor ñu ne déedéet doo doo leen ko yorati. coow la jib hmm. ñaar faatu sax. Mhm. xam nga luy main d'œuvre non qualifiée. liggéey bi li mu laaj. Mhm. yéen amu leen xam-xam. amu leen xam-xam mais am na yeneen liggéey yu ngeen mën a def. maanaam man waaw du manœuvre. liggéeyu mécanicien boo jàngul mécanique mënoo. doo ko mën et apprenti mécanique sax on est on estime que mënu ko. Mhm. mais mën nga joxe clé mën nga indi boulon. mën na la yónni boutique ba. mën nga voilà. mën nga di joxe ba jékki-jékki tamit man. di di dem di dem di di dem ba. waaw mais manœuvre qualifié. formation ci terrain liggéey bi laaj amoo xam-xamam mënoo ko. Mhm. Hmm. en tout cas loolu moo war a coow li yéenekaay yu bari ñëw nañ si nañ ci ñëwaat ñaar ñoo fàtt sa xosanto Kédougou ndax lan Euh, mbirum arrêté boobee nga xam ne finalement sax dañu ko mu mujjee retiré tribune yéene kaay ñëw ci Amadou Ba nee na fu mu nekk nii moom ngi mel ni ku yëg ci car rapide du Samba Lawbe. aywaay ndaw a wàcc mu koy. rang-rang ji mu ngi koy sonal boor bu ne. Ah, ndax nag ci tribune yéene kaay nee na Amadou Ba ndekete yoo front yi mu ubbi moo bari. fam gi ñu mu jàkkaar lool moo bari ndax nag réew mi nga xam ne fii la ñu ne mu nekk candidat bëgg koo jiite. sikkim dafa lakkandoo boo demee sa marché bee da nga ko xam hmm. Amadou Ba bu demee sa marché bi di campagne lu muy wax soble bu seer bi lu muy wax jaaykat yi suukar si hmm. mburu mi keccax mi keccax mi nga xam ne léegi luxe la. mais nag yàpp bi ndawal li. nettetu poste premier ministre dañ ah, ko arrêté woon lu yàgg est-ce que du répercussion loolu la est-ce que c'est la faute de Amadou. moom ci boppam buy dem di battre campagne ci gouvernement bi la bokk. Ah. comptable. demande c'est sa faute moo ko war a lijjanti. la bokk mooy imaamu jëwriñ moo ko a lijjanti. Amadou Ba il ne fait pas du bénévolat. boo duggee ci kër yi fekk ba góorgóorlu loolu leen di wax bu ñu la waxee waxal. jeunesse bi nga xam ne wax fa dëgg neex yàlla Amadou Ba boo demee si ñoom loolu leen di wax. dara jeunesse bi nga xam ne mbëkk nit ñi. ña ngay mbëkki. ñu ne ko yaa falu nga ba pare te yaa ngi ni ñëw ñu mbëkki. du continuité. waxuma nag de si biir yéen mooy wax nee na la yow Amadou boo demee ci ndaw ñi loolu leen di wax. ñàkkum xëy bi tax na ñoom ñëpp jël nañ gaal yi ñoo ngi dem ñoo ngi dee. doy na waate. tribune yéen kaay nag dama ne yow yow ña nga war a liggéeyal sax yow loolu leen di wax yow nga xam ne ci biir APR Benno Bokk Yaakaar defante na. <laughs> fanta siro fasantik sikkin ndax yow lañ tànn. gaañaa ngay tamante nëmm. ci biir tasaaroo. donte am na ñu taxaw ne je valide je valide je valide. ku say kaa ngi validé. Mm. est ah, Laas Badiane Laas Badiane moom validé wu. Laas. waaw ah, moom validé wu moom kenn moom moo lànk. non moom validé wu. <laughs> moom validé wu. ça sent de la fumée quelque part quand même. Lalaye Sofal ordre national du lion. cëm alxames rendez-vous. Ah, ah, waaw waaw c'est bien tàccule loolu waay. borom kofem waay. borom kofem kooku xam nga ne war na dugg ci gouvernement bi bu yàgg. dëggantaan ah Bambay ça sent de la fumée. Ah, moo tax it moo tax it moo tax it saxaar saa ngi xeeñ de. Amadou Ba mii. Hmm. nee naa la cin wutaw a tàkkal fu mu nekk ñu ngi koy ëppee boor bu ne waxuma la saxaar waaye mi ngi boy boy. Eh, est-ce que jax <laughs> saxaar si ma gis nii saxaar cuuraay la de. baa bi saxaar waaw nga dëgg na waay waay waay waay si moo tamit waxal waay. baax na Mamadou Lamine Diallo. nee na nee na wax fa dëgg kii ñu tànn nii. Hmm. yow fekk réew boo xam ne ñëpp dañoo dóol ah dundee gobar jaasi togg añ togg ca reer. Ah. reer ba boo ko xoolee njëkk traay moo sa nekk maanaam yaabay. te ah. luxe la. gisatuñ ko. waa nga jël koo xam ne nii wax fa dëgg neex yàlla nii rek lay def lu mu bëgg mu dara. ah ñu mën a dimbali nag garab bu la. il vit ah. dans un luxe insolent ah. il vit dans un luxe insolent. il partage avec les gens. salon salon Louis XIV. il partage avec les gens. piscine piscine piscine avec euh, jacuzzi. dundee kee <laughs> comme sama genre ah. ah xanaa mën na mu peetoo. dundee kee mbuusu meew. waaw sunguf xamul loolu. sungufu meew fukki dërëm xamul problème mu dépense bu toog naan ay waay suba jëlee dépense. ma foog ni ku am koppar mooy dimbali ñi ñàkk. waaw nga dëgg asma. garab bu la sutul du la may ker. Mhm. Ah. garab bu la sutul. du la may ker du la may ker. pour mu pour mu convaincre opinion publique dina métti torop par rapport ak sa. ndax fii réew mi toll. statut bi jafe-jafe yi fan la jëlee xaalis bi. waaw loolu la bu fekkee yaa ko liggéey nag. est-ce que boo liggéey. en tout cas bu gan gi xam nañu fan la jëlee xaalis. amoo droit bànneex. daf xoslu ba am xaalis. te yaa boo liggéey ba am say milliards. fonctionnaire ban bu ak kër ak ascenseur. ci réew mi gouvernement bi mën nga cee nekk du question de gouvernement est que dafa judd nekk ci gouvernement. fan la nekk ah non judduwul nekk ci gouvernement. non kii fonctionnaire la. ah mais judduwul fonctionnaire. fonctionnaire gis fonctionnaire fonctionnaire normal bu yore ay milliards. mais dama ah, am fonctionnaire bu dëkk fii yor kër. waaw waaw mais loolu la. yow gàttu maamu kër. ana fonctionnaire non dama ne laaj bi mooy ana fonctionnaire buy dëkk kër bu am ascenseur. mais je pense que da ngay def déclaration de patrimoine ak ki ko amee booy bët booy déclaration ah waaw waaw ah waaw léegi loolu dina leer ah loolu dina leer déclaration de patrimoine ça sert à faire non saa waay mu ne patrimoine moom déclaration de patrimoine mu ne moom dafa am patrimoine bu huit milliards ñu ne ko foo jëlee boobu mu ne paa bi moo ma ko jox paa bi moo ko jox ban paa Ablaye Wade paa bi doon joxe mais paa bi mu ne ko non dee joxuma la joxuma ko dara mo dee Eh, point de suspension. mais on sait avoir ce gilet. dama ko yo waaw ñu wëcce dee wax. mais turuma tur ba yéene kaay xaw ma ko de gannaaw ba ñu tànnee ki nga xam mooy Amadou Ba mu nekk candidat bu Benno Bokk Yaakaar fu mu nekk nii nag campagne ba door na pré campagne. door na moom pré campagne ba door. Mimi Touré na ko ndënd nee na ko ragal du ko def kaa ñu jàkkaarloo. maa ngi waxtaan. moom Aminata Touré. moom jamono joojee. wéla maal wéla maal. kii Khalifa Sall ma nga xam ne borom mottali yéene mi ngi toog a jàpp ñàmburam delluwaat na ci terrain bi. Mm. maa la ko wax. maa la wax lii. c'est bien Aminata Touré. Bougane Gueye Dany ma nga ca. Déthié Fall ma nga ca. Abdourahmane Diouf borom awale ñëpp nga ca terrain ba. sëgg bëri rek. ah waaw c'est là waxtu bi eh temps amatul. ah rek ku demul ci terrain xam. Mm-hmm. ña nga ca terrain ba. Karim Meïssa Wade yéene kaay bi nee na candidat fantôme. ban terrain la ne moom. terrain bële. ñeenti weer a des balaa campagne électorale. benn weer campagne électorale ñu def élection. Karim dina def une campagne à la une campagne à l'américaine. 2 avril en deux semaines mu parti ah. campagne à l'américaine am na à l'américaine. l'honorable député Mame Diarra Fam ana Karim. ana Karim. Hmm? lii ñëpp di laaj. manqué ana xaalis bi laa bëgg. lii ñëpp di laaj ana la. ana xaalis bi manqué na moom. en tout cas lu mu euh, sama xarit bi. Habib Niang ñu ngi ci utum parrainage bu métti. décce nag décce Fall mooy sax vrai xarit. waaw borom kii dëpp bi. dëpp bu jekk bi dina am dina am moom. fexeel ba bu ñu 360 si campagne bi rek décce Fall <laughs> waaw. nag xam nga moom mi ngi ci utum parenage yi waa parcelle ak gàddaay war nañu ko andil seen i signature waaw xaw ma nag yi dina candidature boo la déet. Alpha Thiam Vox Populi. ana Alpha Thiam secretaire général bu Force Nouvelle. c'est le fils am ah, ah. na ci droit Khoureyssi Thiam la. Alpha Thiam. très bien Force Nouvelle. ñu dem sa Xosanto. waaw deux morts plus de dix blessés. si xosanto googee nga xam na la ko war a du lenn benn arrêté préfectoral bi nga xam ne moo taal dëkk ba mhm. ñu mu jëkkee abrogé mujj nañu ko dindi waroon nañ njëkk foofu Birahim Seck Forum Civil avait pourtant alerté les autorités danga xaafu woon na danga xaafu woon na moom Birahim Seck xëy na dañ ko dégluwul libération yéene kaay ne nag ma dikkaat ci yenn témoignage waa ji cinquante marié père de six enfants moom mooy première victime bi Bakary Sissoko est le grand frère du maire de Khossanto Pabla de vingt sept ans marié et père d'un enfant la seconde victime est un Burkinabé du nom d'Abraham Ouedraogo quatorze blessés dans un état jugé grave l'arrêté préfectoral bi andi coow lii daal nañu koy abrogé yéenekaay bi daal dina ciy dikk de. Burkinabé. le point actu affrontement sanglant à gu la ruée vers l'horreur au lieu de or à Khossanto deux morts daal na si dikk ministre de l'intérieur war a présider ko tey ji si mardi benn CRD spécial aux côtés du ministre des mines et de la géologie war ngeen ko def bool ko defee war ngeen ko def booloon ko deful war ngeen ko def def leen ko 24 heures ne mort de trop te muy dëgg parce que nag yenn il faut ñu waxtaanee ko rek Mame Boye Diao mi ngay dëggal boppam de Mame Boye Diao mi ngay dëggal boppam tey ji la war a jàkkaarloo taskatu xibaar yi ngir wax ndax dana dem wala dee day forcer barrage wala du forcer. critique yéene kaay plan bu candidat substitution en tout cas waa PASTEF ba woon wala PASTEF. en tout cas ci nguur gi nee na ba woon ñoom ci boppam ñu ngay xool ñu ngi waxtaanee plan B de. ah waaw waaw. ñu ngay waxtaanee plan B de. waxtaanee nag lu tax ah. ah, amatul. Walf nee nañ fu mu nekk nii moom mauvaise camaraderie moo nara a sonal ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba ndax day am ñoo xam ne dañuy wax waaw ci kaw si suuf ñuy joxe ay consignes. Mm-hmm. loolu moo leen sonaloon ci local yi ñoom xam nañ ko sax. yoor yoor les scandales RTS ndax nag nee nañu euh, président Macky Sall wala waa Benno Bokk Yaakaar di tànn seen ab candidat RTS lu si yoonam ba mu koy def direct. xanaa kon après nag képp bugaan ngay daan buy def euh, euh, nu investiture am direct lañ ko war a def. Abdourahmane Diouf bu awale xanaa direct lañ ko war a def édition spéciale. RTS RTS du Sénégal la. si moo xanaa waa RTS du ñu ay fonctionnaires. non c'est des ah, mi ngi noonu la. un destin prédestiné les défis d'une candidature Mountaga Sy Amadou Ba doit créer le rêve susciter susciter l'espoir. le quotidien foofu la génn. il a une lourde tâche. Aly Ngouille Ndiaye mañ doon wax démb. nee nañu fu mu nekk ni nag sa lingeer googee day yëngu na de. effectivement. seize dix neuf maires yi nañ ko ginnaaw. dëgg la nañ ko ginnaaw. waaw. Mhm. 16 si 19 maires yi donc ñaataa si des. 16 17 18 19 3. 3 ñoo des. parce que dema euh, euh, euh, kii nu mu tudd foofu loolu lañ doon wax mu ne ma non am na base Linguère am na fa doole. seize si dix-neuf maires yi am na wala amul direct news moom moo eh, la présidence de la république c'est pas une affaire de passe. donc c'est pas une affaire locale. oui la présidence de la république du nawetaan. championnat national tu n'as pas besoin d'être maire ou adjoint au maire la présidence dépend de ton parti ou de ta coalition. y a pas n'a pas fait. trois ans avant d'arriver au pouvoir. Ah. attention. l'observateur dikk na ca Amadou Ba. là où le bas blesse dikkaat na ca le choix de Macky ses dégâts la paire une division et un malaise dans le silence parce que am na nag parce que parti bi yëngu na de Abdoulaye Daouda Diallo se braque. Macky tente de le raisonner woo na ko moom président euh, bu conseil économique social proposé na ko poste premier ministre waaye nag loolu daa fa mel ni ambalew ko de déedéet moom daa daf bëgg rester ci logique am woote naa rek Arouna Dia nee na moom bu day liggéey pour que Benno Bokk Yaakaar Boun Abdallah Dionne mii tey président Macky Sall dana ko dalal waaye nag moom ci boppam bu mu leen bett bu mu ànd ak Alim bu ànd ak Alim Guy Ndiaye. coalition mi ngi xeeñ. Oja ñu dem ci Oja balaa ngay laal ojaa nga laal le point Fally Seck. maire bu Ross Béthio nee na moom ci boppam ànd na ci Amadou Ba mi nga xam ne moom la ñu tànn ce choix cohérent assure la continuité de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent le point moom moo fa génne moom Fally Seck daal nay ànd validé na kon ñu jàll ci lan. Odia. Odia ah Arona ah ñu ngi nii ana Odia. alors Odia ngi noonu. très bien. Amadou Ba la ñu yëkkati ñenn ñi nga xam ne ñoo validé yëkkati seen loxo di wax wëy jamono joojee nga xam ne président Macky Sall mi ngi jéem a baat ñi nga xam ne mooy Mame Boye Diao Abdoulaye Daouda Diallo kii bu Abdoulaye Dione. waaw ah, ñu xool ba xam. et quand tu vois l'ombre, c'est la disparité involue. inconnu ñoo ñoo nekk di porté aywa bokk na ci li gën a fës ci boppu xibaar yi ñaar yi ñiy ñàkk seen bakkan ci fukki am ay gaañu gaañu fële ca xusanto mu ngoog ca Kédougou la bilan provisoire la ñu wax affrontement yu amoon ci diggante takk der ya askan wa yeewoo rawati ndaw ñi sa xosanto en tout cas la ko waral moo di benn arrêté préfectoral bu nga xam ne mooy modifié fonctionnement bu commission recrutement bu main d'œuvre locale non qualifiée bi nga xam ne dëgg neex yàlla ñu ko dénk léegi te de village doon def arrêté boobee sax dañu ko mujjee rek euh, retiré euh, ñu waxtaane kon grève bi nga xam ne mooy ñi liggéey ci bokki moomee li ci bi la jotaay xibaar loole nag andi na ay gàllankoor cent vingt ci ay waxtu la ñu fës ne banque seen ak loxo kon altine ba àjjuma euh, kon nag maire yi daanaka liggéey du am état civil yi nag sax njortees nañu ni kon liggéey ba ko tax du ko tax a demee nekk nag ay gàllankoor ci waajuru ndongo yi nga xam ne ñu ngi nekk ci wàccaayug ubbi teg l'école bi Euh, jàmbatug liggéeykat yooyee bokk na ca ñu saytuwaat salaire yi yokkute gi mu maase ba yegg si ñëpp daañu waxtaane bii la jotaay xibaar ba tey di jàmbatug jaaykat ya nekk sa marché bu euh, euh, Grand Yoff ñoom nag wax fa dëgg neex yàlla leen leen sonal du lenn lu dul ndox mu bon ba nga xam ne moom mooy jaabaa jonge sa yoon ba sa mbedd ma réseau ba ci boppam dafa mel ni moom mooy tàmbalee bal nee nañu nag ONAS na ñëw liggéey lu nu mel lu ko mel rek daanaka dootu joxe seen i juuti tàggat yaram jongante xaritoo la Sénégal Algérie tey ji si ngoon Aliou Cissé démb amal na janox taskatu xibaar yi jongante boobu la xam ne nii du yomb seen digganteex Algérie euh, daañ si dikk ci bi la jotaay xibaar jékkale ko li yéene kaay xëy fësal amaan tulaay ci bundooy faram fàcce gi nag tey dañ si ànd ak Simon Faye le sage Trafic News. allo Papa Alé. allo Asma. Papa Alé toll. Euh, merci beaucoup présentement nous sommes sur les allées du camp pénal mais retenez que ici pas de souci mën ngeen fi jaar daal di wéy seen circulation dans les deux sens par contre des lenteurs sont à noter à quelques encablures de la passerelle de la foire concernant. woto yi nga xam ne ñoo bay ko du côté VDN3 jàmmalaay jaare ko yëngu leen euh, foofu leen ndànk-ndànk ngeen progressé c'est du véhicule mal stationné euh, bu ngeen dépassé la foire mën ngeen di wéy circulation jaare ko Sénégal Japon bi nga xam ne ñoo bëgg rale directement cimetière Saint-Lazare foofu la aussi pas de souci euh, naka noonu aussi sur l'autoroute Seydina Limamou Laye pour woto yi nga xam ne ñoo bay ko du côté de la foire en partance vers jaare ko l'échangeur Philippe Maguilène Senghor foofu la aussi donc y moins d'embouteillage Euh, pour continuer la circulation bu ngeen dépassé l'échangeur bi aussi mën ngeen tàllal rek euh, pour ñi nga xam ne ñoo bëgg dem du Ngor foofu la aussi amul jafe-jafe mais rek tout à l'heure aussi donc ñu ngi suggéré euh, des embouteillages sur la nationale précisément buntu bi gën a environ sànq wax naa ko foofu la ndox mi moo daal di occupé complètement tali bi li ne mel nag daal indi donc difficulté circulation bi tax na yéex na lool laata rek ngeen am accès si C'était Traffic News. jërëjëf Fapal Cissé Mame Mbaye Ndiaye mënees nañ doore xibaare ci ponk wi njëkk moo di sa xosanto ñaar ñoo fa faatu am ñu sa jëlay gaañu gaañu fante suro fasantik sikkim gu amoon démb ñu féete sa département bu Saraya diwaanu gu diggante kon na ndaw ña askan wa ak nag takk der ya ndaw yi dañ doon manifester ndax modification bu ñu def ci benn arrêté bu préfet bu département bu Saraya daal di xaatim jëm ci recrutement main d'œuvre locale non qualifiée jom daanaka nag ay waxtu nekkoon nañu kon ci ak defante diggante ak sa Sabadola Bambou juróom-ñaar jël nañu ci gaañu gaañu yu metti fanweer ak juróom-ñaar jot nañu leen sa téyendi sa gendarmerie leeral yi ak Alassane Baldé ñaari doomu aadama daal cee ñàkk seen bakk ci ay soox ëpp fukk jëlee ci ay gaañu gaañu di bilang bu nga xamante ne xaymee nañ ko gannaaw jàmmarlooy métti yu dox ci diggante ñi nga xamante ne mooy takk der yi ak askan ba yeewoo ci xosanto ci diwaanu Kédougou kenn ki di ab ndaw bu bawoo ci Burkina Faso keneen ki nag di rakk ci maire bi nga xamante ni mooy maire gox ba loole nag moom ci boppam moo ko daal di xamle moo ne ci fajar ba nigi nag élément gendarmerie askan boobee nag ñoo nekk di laale ñoom ñoo ñi nag daal di baari mbedd national bi ngir rek ñaaw lu coppite yi nga xamante ni indi nañ ko jaare ko ci arrêté préfectoral bu département bu Saraya boobu la arrêté nag di fixé li nga xamante ni doxalin bi ñu war a am ci commission yi tëral ngir rek recruter ay personnel non qualifié ci gox goxaat yi. noonee nag autorité administrative yi ñoom gannaaw bi nga xamee ni ñoo doon coordonné boobule eh, commission nag eh, tey daanaka ñoom ñoo koy eh, jiite coordination boobu sax ña ko doon jiite nag mu nekkoon chef de village coppite yooyu nag mo waral askan ba daal di mer ba futtu tax nag ndaw ñi daal di génn ci mbedd yi ndax ragal nañu mu am njuuj njaaj ci wàllu doxalin boobee ci jamono ji nag foofu coow laa ne kur tension bi ne gàññ ci dëkk ba ndax askan ba dañoo mer ba futtu kii di mer ba sax xam leen nag dana déposer ab plainte ci procureur la république ca gox ba ci xibaar yi nag xam leen nañ ne ministre de l'intérieur di Félix Antoine Diome moom jël na bataaxal ngir neenal boobule arrêté préfectoral bu préfet bu Saraya jëm ci dalal xel yi ci boobule diiwaan gannaaw jàmmarloo ya fa am ci subag ba nigi Alassane Balde jàppal ne kon arrêté bu préfet bu Saraya ba waral coow la te euh, askan wa ne mukk du sa dal ba sababoon ñooñu daal di say fàttu arrêté boobee dañu ko mujjee annulé ministre de l'intérieur moo jël boobu a dogal ngir ak dal daal di amandi euh, foofee sa xosanto euh, maire bu commune ba di ma Mamadi Sissoko mu ngay sàkku yoon.